Doudou Wade ci est est ce que tu m'as ci sa wax. waaw ah. euh, et d' ailleurs ça on on l'a senti ah dafa mel ni dañ la écarté de l'épicentre euh, de fonctionnement du parti. non je n'ai je n'ai jamais été dans l'épicentre du fonctionnement du parti. comment ça. xam nga dañuy di foog xam nga épicentre mooy la mooy koo xam ne kii bus bu nekk yaa ngi ci nangam ak nangam man dëkkuma kër Ablaye du ma fa dem toujours du ma gis bu ma wooyee soxla ma nag ma ñëw bu soxlaa lenn loo xam ne daf ko soxla. bu wootee balaa muy teg baatam a ñëw. kañ nga ko gëj a gis. yàgg na. kañ euh, notre dernière rencontre a eu lieu le 29 juillet 2022. mooy aux élections législatives ba muy dem di voté ji. non vote bi le 31 la. avant vote bi. oui le 22. le 22 il il est revenu du voyage. et il devait même aller à la clôture de la campagne électorale à Pikine ci la joxoon rendez-vous ne ñoom ñëpp dañ ko xaar Pikine donc moi je suis venu l'attendre chez lui bi mu ñëwee fekk ma fa et c'était pour régler un problème essentiel le problème c'est qu'il n'aille pas au meeting parce qu'il venait de voyage aller seul au meeting ci moment boobu ak ñi fa nekkoon ci garde corps bariwul et les circonstances ne s'y prêtaient pas wante moom loolu moo tax mu ñëw moom dafa ñëw fekk ma ci biir kër ma toog. la moo tax boobaak ak léegi gisee woo moom. Euh, d'abord xam nga je je n'ai pas je j'ai eu des rencontre très très avec le président Wade très seul même bu mu nekkee dans le pouvoir maa ngi nuyu d'abord suma Idrissa Seck dafa ma daan wax naan del ñëw di nafar si ma ne ko am na loo xam ne bu ma koy fekkee bu ëllëgee duma ko mën a atte Idrissa ak may dégg su ma rakk la xam na li ma koy wax su ma rakk la bu suma c'est mon jeune frère bokkuñu camp bokkuñu parti mais xam naa aussi moment yi nga xam ne liggéey naa ak moom ak moment yi ñuy jotee ci politique yëpp mën naa la wax lu nekk lu ci xew si je suis devenu président du groupe parlementaire c'était Idrissa Seck ah parce que moi je ne voulais pas du poste de prise li nga xamul dañ ma nommé président de la vice président de l'Assemblée nationale benn yoon laa ci kaw may xool affaire bi jaaxle man fas laa dëkk Mbaye Guèye laa xam ak Boy Naar ak maam góor gi ma ne waa mbëri nekk fi ku nekk ngemb ma toog ci kaw ma dem seeti ko ma ne ko man fi du suma place mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko nga wàcce ma je ne peux pas être vice président est-ce que yaa ngi may dégg mu ne ma da nga may indi problème ma ne ko député simple moo ma gënal parce que ma place c'était là-bas mais pour en revenir à notre sujet. pour ñëw foofu lan moo tax nga gëj a gis Ablaye Wade depuis juillet 2020 mais xaw xaw ma loolu xaw ko parce que d' abord c' était un peu c' était un peu difficile pour àgg këram. pourquoi c' était difficile. mais mais moo tax kenn gisu ko. dafa am un dispositif. mais mais c' ça aussi le le grand problème. Euh, xam nga yow Maïmouna tu m'as demandé deux ou trois fois pour aller à Doha wala pour aller rencontrer le président pour chercher une wala déet maa ngi say lettre non bindu ma lettre wala ngonte bon ngonte bon dama ko exprimer donc ngonte bon dama juum rek ka xam nga dañu déggoo parce que werante du ci am moom li ñuy wax ba léegi lépp clair man kay tey rek sàkku euh, naa gis Ablaye Wade c'est Mamour Ibra Kane je le dis d'ailleurs parce que y a beaucoup de personnes qui l'ont exprimé du def du temps am na ñeneen ñu exprimer leneen y a des hommes politiques y a beaucoup de personnes mais gis ko moo jafe parce que c'est organisé et l'organisation bi am ci kër googu c'est organisation bu normal la organisation bu juste la organisation boo xam ne bi kenn mënu wante loolu moo war a am c'est l'organisation de Karim Wade mais c'est légitime mooy doomam non déggul xanaa déggul ma wax jarul dama ne parce que da nga yàq da ngay indi moo bu ma indiwul loolu moo war a am moom moo war a aar papaam protéger ko protéger ko ñun ñu dimbali ko ci mais bu indee bu indee système de protection ci kër papaam mais li ci war mooy ñu ñu dimbali ko ci bàyyi ko ci noonu